salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñuy seetaan sur la chaîne leader Kébémer TV première chaîne digitale du département ñu ngi leen di ziar ti leen nuyu ti leen bëggee kenn ku nekk si turam ak santam tey nag ñu ngi fii nii si buntu lycée Macodou Kandja Sall ñëw pour dëttal et yi micro pour ñu waxtaan ak ñoom si situation bi nga xam ne si école bi mi ngi ko dund fan yëpp si entre élèves yi ak professeurs yi ba chaîne leader te Kébémer TV tey ñëw bëgg xool élèves yi nan la nekk si école bi ak problème bi ñuy dégg lan moo ko wund ak grève yi ñuy def yi ne lan moo ko wund ndax bu njëkk grève tanka dum dégg si entre euh, professeurs yi ñu daan grève du moins mais léegi élèves yi lañuy ñooy ñoom lañuy gis ñuy grève lu bëree bëri ba tax na tey jii nag tey ñuy ñëw pour def taxaw seetlu xool yooyu noonu ak situation yi ak crise yi ni ñi ñuy ñuy dund si école bi lan moo ko waral

ben mouvement bo xam si responsables regrouper responsable yi nek ci école bi comme que ren gouvernement scolaire amul ñu créé un mouvement bu regrouper responsable de classe yi suis avec euh, Samba Tunkara classe TL2A ak Fama Diop TL2C ak euh, Moussa Diata, seconde LF Ndeye Ndiaye Diaw ak euh, Ahmadou Bamba Cissé TS2 ak Nabou terminal S terminal L2 ok kon ñu gis nañ daanaka daal euh, école bi classe yëpp am na fi ay représentants. Uh-huh. mais ñu bëggoon a xam coow li lan la lan la lan la en fait. coow li maanaam am na si geste mën naa ma ne ñu si bëri tey jii xam na problème bi ñu tax a yu ñu tax a arrêté suñuy cours aspect yi nag bari na mais am na buñ ci ciblé boo xam ne si moo gën a siiw te moom la ñëpp gën a comprendre te maam aspect yooyu noonu dina si ñëw benn par benn te dina la ko leeral bu baax a baax mais bi si gën a bi nga xam si daal moo gën a marqué moom moo gën a tax jànguñu mooy le camp de soin bu suñu camarade de classe bi nga xam ne si nii dañ koo bëgg a sacrifier si lu dul dara te loolu noonu duñ ko seetaan en tant que camarade donc ko bëgg sacrifier sur dul dara sacrifier comme nan parce que euh, man les ma jot a dégg moo di ko ak élève la moi nga xam te si ni dafa am ak profam bi ko doon jàngal am coow ñoom ñaar ma bëgg ngeen dikk si coow li ñu coow li pour ñu mën pour pour ñuy seetaan pour que nous comprendre daal ñu coow li ok exactement coow li ni mu demee mën naa si bañ a la jox kenn koo xam si ni mën na la rencontrer séance bi ni mu demee. Mhm. koo xam si ñoo benn classe. Mhm. te ñoo cours bi ñu doon def. bi séance bi di am. Mhm. mu nekk Samba Tunkara j'espère que loolu dina ci mané sori. mo ñaan ñoo bokk voilà asalaamaaleykum mbokk mbok internet yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax voilà di rafetlu aussi initiative bi nii waa Kébémer TV voilà franchement am nañ contentement bu baax parce que tey bu ñu amee problème dañuy soxla fuñ ko jooytoo pour que nit ñëpp xam lan la ñuy jooy ak lan moo tax ñuy mars voilà pour euh, comme Makhtar wax rek li a tax di marché quatre aspects mais bi ci a ak cours carrément c'est le cas de Son Sohaibou Amar nga xam man ak moom ñoo bokk classe euh, terminal euh, euh, la man classe jour bi nga tamit problème bi jour problème bi di am maa ngi classe bi maa ngi toogoon ci yi table ndax man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a jóg taxale ko ak madam bi mais ñun ñëpp xam nañ ne maanaam erreur ñëpp lay dal te tey benn élève ñëwul ci école bii nii ngir maanaam di xeex ak professeurs yi wala di fi semer la pagaille dañu ñëw fii pour jàng te professeur duñu suñu ennemi ñun aussi du ñu seen ay ennemi sooy bu nag dafa juum nit ñëpp xam nañ dafa juum te ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom classe xam nañ ne moo tooñ professeur bi mais def nañ le tout pour di ko jéggalu pour mu baal ko ba dem nañ ba xam ne kat kii dem na parce que professeur bi dem na ba plainte woon da te dem nañ ba xam ne plainte boobu yëpp dem na ba retiré ko donc kon yaakaar naa li ñu doon ñaan lu ci bari wàññeeku woon na mais tey dafa am leneen loo xam ne moo ci gën a metti parce que même si que tey jii nit bu ne nit nga te gis nga dund gu sotteegul lu ne xaj na ci erreur ñëpp lay dal mais yaakaar naa tey bu ñu ñaanee kilifa yi ñaan ñëpp ñaan ba administration bi ñëpp ñaan taxaw ñoom ñu ne duñu bàyyi te madame bi bàyyi moom mi nga xam ne moom li ñu def lu ñu def mu baa mu mu mu retiré plainte am IA woon na na booy bi voilà bi mu ko sanctionné lim euh, temps bi jeex na pour mu ñëw jàngi si waat léegi bu mu ñëwee jàngi si waat ñun booy bi am na droit jàngi si waat léegi pourquoi professeurs yi taxaw ne ñoom bu ñëwaatee ci lycée bi dañuy génn. waaw parce que tamit suñu gisee tamit mu nekk ak élève yéen yéen ñi nga xam yéen a bokk moom classe yéen a témoin ni que moom moo tooñ xeex ak élève bu njëkk école pour milieu yarukaay la. école pour éduquer la école nekkul pour yar ndax man su ma fàttali ko ñun suñu gone suñuy prof dañ leen ragaloon ba suñu leen daan seen seen bett dañuy daw kon donc suñu demee ba toll fa nga xam te ne léegi élève am na fitu jàkkaarloog profam ba koy bay xeex ak moom est-ce que kon tax duñ ñoom euh, tout euh, il est temps ñu daf euh, taxaw taxaw seetlu du moins est-ce que jotu ñoom ñu daf taxaw seetlu ba tax na ñoom ñu ni élève bi duñ ko permettre mu jàngaat parce que duñ ko bàyyi tey bu ëllëgee est-ce que nekku tey élève mën si jaar def lu leen neex tey élèves duñ ci jaaree def lu leen neex parce que cas bi bi mu amé ñun élèves ñun ñi nga xamné ay élèves lañ comme mom ño tej suñu classe tok waxtaan ak eh, waxtaan ak wa classe bi yépp pour calmer leen pour ñu jox respect professeur yi doli seen respect bi leen jox parce que professeur bi lay jàngal amoo fayam ki nga xam ne moo lay jàngal amoo fayam da nga ko war a jox respect mais le respect ça doit être réciproque nit boo ko boo bu la joxee cër da nga ko koy delloo xëy na nag. booy bi kenn xamul lan moo tax mu def loolu parce que ñun affaire bi ni mu bettee ñëpp noonu la ñu bettee ñu ngi ci classe lu ko indi en fait lan moo ko indi. maanaam booy bi dañu ñëw huit heures. Mm-hmm. léegi moom mu dem toog fee ne euh, toogul sax dafa dem am élève bu mu doon waxal xaw ma da doon ko abu bi xaw ma léegi madame bi mu ngi koy séen léegi bi booy bi ñëwee dugg si mm-hmm. mu ne ko doo dugg heure bi euh, demal xaar neuf heures. Mm-hmm. ma ne léegi avant mu koy wax demal xaar neuf heures sax dane dane ko génnal dafa dugg mu ko génnal booy bi dem génn. man maa génnaat classe bi ne ko son bi est-ce que du li nga euh, fëggul euh, porte bi moo tax dugalu dugalu la mu ne ma xaaral kon ma fëgg mais façon bi mu fëggee bunt bi tax na professeur bi ne ko xaaral ba ba ba 9h 9 mu ñëw ak biem ñëw fëgg professeur bi ñëw di wax ak moom di ko jox ay conseil ñoom ñaar nag si biti lañ nekkoon kenn xamul lu ñu def foofu noonu wax nañ ba pare mu ne ko léegi demal nga ñibbi booy bi ne ko day def cours ci la ko wanee ginnaaw mu mu mu def ko nii.

ñu xool ne tey jii bu doon seen rakk ñoom wala ñoom comme ci arrivé woon di nga bëgg tey jii ku la ku la ku la plaideel ku la baal. mais xool leen tamit prof bi mu def loolu tamit tey su ñu compté seen mag la yéen tamit wala tey mu nekk seen euh, seen jigéen tamit. xool leen loolu tamit. xoolal xam kañ la doon kañ la doon metti mhm. maanaam ñu ne ñu ne sooy bi moo tooñ waaye suñu yoon nekkul ci loolu mais ñun dañu ki nga xam ne moom la ñu soutenir mhm. dañ ko wax ne ko yaa tooñ ba mu xam ne yaa tooñ xam ne moom moo tooñ. Mhm. mais tamit mënuñu ko seetaan. parce que candidat la te dafa war a def examen te ñun du ñu def examen di ko bàyyi. parce que imaginel koo xam ne depuis enfance mu ngi toog di jàng yaayam mu ngi koy jëndal papam di ko di ko di ko préparé ba mu egsi fii nii terminal nga bëgg ko yàqal avenir am loolu du ñu ko nangu. loolu lañu la ñu bëgg ñu bàyyi ko mu jàng si waat sinon voilà cours yi moom du fi du fi amaat voilà loolu daal la ñu bëgg jàmm ak salaam la ñu bëgg voilà mu ñu bàyyi ko mu jàng si waat hmm. mbokk yi internet yi yéen ko déggandoo muy euh, li nga xam si moom moo jóge si élèves yi nee ñoom jàmm daal lañ bëgg mais jàmm gi dafa mel ni tamit jàmm gi yéen élèves yi tamit yéen sàkkuwu leen si dara tamit yéen it ndax booba léegi tamit sàkku si yéen a ngi yëngal te yëngal te yëngal jéemoo leen dem si table ji pour négocier pour jéem waxtaan mais da ngeen di préféré di génne seen morom yi dox loolu noonu lan moo tax komba. leen beneen façon boo leen jëlee seen combat euh, d' abord ngi nuyu ñi fi ak euh, mbokki internet yi sama camarade yëpp ak képp ñi nga xamante ni ñu ngi may seetaan quoi bon dégg li ngeen wax bu baax j' que sama camarade bi wax na lañ fi waroon a wax lépp mais dafay dama yaakaar ni déggoo dafa xawuloon woon am quoi parce que ñun woote woon nañ benn réunion boo xamante ni si élèves yi la ak euh, censeur proviseur ak euh, intendant surveillant général aussi ak euh, monsieur Mbaye Diagne léegi réunion boobu li ko taxoon a jóg mooy ñu wax ci point bi nga xamante ni si moo waral coow li fi amoon parce

léegi ñun ci bi ñu xëyee ñëw nañ jàngi si bi ñu toog nañ 8h 8h15 h ba ko tey 9h prof yi dugguñu am na prof yi ñëwoon ba jub classe yi tourné waat xamuñu motif yi xamuñu lan moo tax ñu def ko léegi ñun tamit censeur ñëw na wax ak ñun nee nañu dugg leen ci classe yi wala ngeen taxaw bu fekkee professeurs yi euh, defuñu cours boobaa ngeen bëgg mën a am looleen leen teg si table looloo loo xamante ni si mooy doon seen arme de combat. mais nous on a respecté ce que le censeur a def nañ li mu wax léegi bi ñu defee li mu wax nag professeurs yi si boppam ñoom ñoo am tort quoi parce que ñoom ñoo jàngale siwul ñun tamit jàng moo ñu indi su école bi n'est-ce ñu xëy 8 heures ñëw fii censeur wax na lim ñuy wax ba pare ñu ñëw pour def secours ñëwaat gisuñu professeurs yi loolu tamit du yoon euh, léegi nag loolu moo ñu poussé pour ñu génn. def ben mouvement délégation marché pacifique marché ko ko mais pour que les ak bi am ak mais nous nous pour fi di ak ça ne nous intéresse pas nous, point bi tamit le cas de quoi nous, wax na ci ba euh, monsieur Tunkara wax na ci ba paré Nous rek Nous d'accord na ni mais aussi nit tooñ na ñu bal ko au moment où euh, madame Filo bi si bopam retiré na plainte am ñun yaakaaroon na ni lepp bàyyi mu seddu quoi mais lan moo tax mu retiré plainte ba euh, tambali wat di wat di wat ay wax quoi man j'espère que ça n'a aucun sens quoi lolu amul ben sens mais ñun tamit nous les élèves euh, waxuma sax élève terminal mais élève bo xamanteni si yaangi jangé lycée Macodou kangé sal ak fo mënti jangé nous, sommes koy ñu ngay nekk nous ki nga Amar soutenir ah, parce que rappelez-vous les paroles de Messager quand il dit ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir donc désespoir c'est ce que nous yegg li Nous, ñaan professeurs yi euh, bu nous ñu ñuy dégg nañ euh, un moment stable un moment calme pour euh, ñu bañ a renoncer waat ñu bañoon a ñu bañ a li nga xamante ni si mooy li fi li fi am ñu jéem koo rejeter ba nga xamante ni si euh, deru Kébémer du yàqu parce que lii nii bu fi xewee rek Kébémer la ñuy yàq deram quoi merci beaucoup je vous remercie. mais mais tamit euh, su nekkee tamit élèves di ngeen a nii yéen it di ngeen tamit nii pour xeex loolu prof tamit ñoom suñu àndee tamit seen morom prof tamit xeex tamit ñoom pour loolu noonu est-ce que combat bi bonsoir maa ngi leen di nuyu di leen sant surtout kii bi réseau bi Kébémer TV rafetlu nañ trop acte bi mais ñun dañuy jublu ci li ñu fi indi tey jii parce que rafetul suñu camarade de classe man bokkuma ak moom classe ren mais daaw ñoo bokkoon classe te quand même élève bu baax la meilleur élève la jàngkat la te bëgg na li muy def léeréer nag c'est humain. comme niñ koy waxee tout le temps proviseur wax nañu ko tey biñ demee préfet de même loolu la ñu wax nit ku dul def erreur amul donc pourquoi benn erreur rek ñu bëgg ko aggraver comme si surtout nag li ma gën a metti ñu ñu ci diñ ay criminel genre te ñun ay élèves lan duñ seen ay ennemis ñun bëgg nañ leen respecté nañ leen suñ fi nekkee dañoo nekkoon ci jaamu amuñu benn problème école bi stable pourquoi tamit benn problème bu ndaw bëgg ñëw yëkëti fi lo xam ni kenn xamul fu muy suñu turu école bi dem niveau national dem ba ay RTS télévision nationale di ko Sa ça tamit c'est vraiment insupportable di salir suñu image amna yo xamni ça ne se fait pas te ñun suñ nekkul seen ay rak mën nañ ni seeni doom lañ te ku ne am na rakk wala doom boo bàyyi sa kër mënoon nañ ci xool loolu ay élèves lañ nag bëgguñu lu dul jàmm jàmm moo ñu fi indi marche ñu pour xeex nii pour xuloo pour waxante lu ñaaw non dañ ko def pour stabiliser suñu école doy na nag jàmm lañu bëgg merci. waaw dégg nga ñu ni ñoom jàmm lañ bëgg te aussi tamit bëgg na école bi ànd ak ak dal ba tax tey maxtum tey nan lañ mën a ba jàmm jooju ñëw nan nan nan. waaw maanaam jàmm ji ni ñu war a def ba amaat ko ñi ngi si ñi ngi siy dox parce que bi cas bi amee ñi si war a wax wax nañ si ñi si war a dox dox nañ si administration mi ngi siy def li si war a def yëpp ñi ngi ñaan njëkk suba tey ëllëg ngoon chaque jour ñu ngi créer ay réunion ñun dañoo arrêté suñuy cours maintes fois ñu perte ay heures yu bëri si ay réunion yoo xam si ni yooyu yëpp dox jàmm moo ko waral yaa ku nekk at ñi nekk Kébémer yëpp ba ci tey jii le professeur Diané wax nañu ko ne ñu dama sukk seen kanam ñaan leen njekk tey bu demee ba ñoo ñëpp nag ñëw intervenir pour ñaan njekk ñu bañ kon es bi jaafe naa ne li des mooy ñu jéem a xool nu ñuy def ba régler situation bi te li ñu def ba régler situation bi lenn rek la tey gis nañ discuter nañ ak préfet jox nañu rendez-vous lundi ne ñu incha allah rabi dinañ amal réunion ak IA. te réunion boobu noonu ñu ngi ciy am sens ak njort bu rafet que ne dinañ fa trouver terrain d'entente te yàlla bu yàlla tas yaakaar incha allahu rabbi jàpp na ne bu ñu jugee foofu noonu ba retourné waat son bu dina jàng si ñu dellu si waat suñu école na meloon ñu dundaat jàmm ak salaam. mais man xam nga benn problème la muy comme te prof ñoom ba ba ñoom ñi ngi ñaan bëgg ngeen ñëw yéen tamit bëgg ngeen ñoom ñu bëgg affaire fan la fan la la taxawee. fan la taxawé parce que ñom bëgg nañ yeen bëgg ngeen. salam salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen euh c'est juste que ni pour wax ni euh, son yi bu moom demone na ba trouver euh, euh, un terrain d'entente mom waxon na ni day arrêter cours yi toog seen cœur ba année bi jeex mu ñëw def ci bagam mais vu que ni sanction bi une semaine la won des sanction bi jeexna dafa si nañ ko jour mardi mercredi mu ñëw professeurs yi arrêté cours à 10 h mais biñ laajee explication dañu ñu loolu taxul ñu arrêté cours biñ ko arrêté réunion lañ ne waaw légui censeur arrêté arrêté am 8 heures nous leen def si cours bu 10 heures arrêté cours yi xam leen ni loolu moo tax arrêté ko euh, suba trois professeurs ñoo fi ni ñi si des sans censeur dinañ dugg si classe yi ba bu 15 jotee gisuñu professeur dem 15 jot ñu et demi professeurs yi ça veut dire que chercher problème parce que ñoom waxoon nañ bu ñëwee alors que ni ñoom dañ leen parce que école kon ça veut dire que ni toor bi si ñoom la nekk. waaw waaw ngeen tey da ngeen a piégé euh, prof parce que man tamit xam nga su nee ba diggante élève ak prof ak complicité bi daan am si ñoom ñaar ak ragal gi daan am si seen diggante su ñu dem ba élève di di euh, tamit prof tamit doy na waar daal doy na waar daal euh, léegi léegi exactement exactement nan lan mën a def ba jàmm ñëw nan lan mën a def ba jàmm ñëw. alaikum, beaucoup internet yi maa ngi bu avant tout je me présente Cheikh c'est Cheikh Ahmadou Bamba je suis en classe de terminale S. avant tout mënoon naa problème mënoon naa a ne yegg fii bu du woon loolu sa administration ak proviseur ñoom ñëpp boole naan ñu waxtaan seen biir ak professeurs yi mais ñoom ñoo xaw a dëgër bopp tuur si benn côté n'est-ce pas su ma d'al. avant su ma affaire bi arrêté.

refoulé def ñu ko te en plus def ñu cours espagnol te boo boo nee L2 jàpp nga war a xam ne filo ko 6 la si ñoom te instant ñoom daanaka ñaari domaine lañu def te aussi beneen domaine bi boobu ba tey defuñu ko mun na leen kaa évaluer jour baccalauréat bi te en plus loolu bu génne ñoom du ñu xam lu ñuy bind bu fekkee ñu suñu domaine ñun garaawul ndax aussi ñun madame bi moo ñu yore te ñun domaine 1 bi daanaka ba tey génnuñu ko damay ëmb ba te génn ñu ko te en plus bu fekkee ñu suñu côté ay fekkee mat ak PC daanaka ñun mooy loolu ay trois leçons moo ñu dese mais en plus foog ñu sorale suñu suñu mbokk élèves yi unité passer yi teel yi foog ñu sóoraale leen ndax actuellement nag ñu bëgg nañoo def cours suma ma daal lan laay woote ñu waat jàmm professeurs yi ñëw ñu def cours normal. jàmm ñu ñooy instant wax dëgg yàlla loolu laay ñaan te aussi am nañ si yaakaar te aussi dem nañ ba wax ak monsieur le préfet te incha allah trouvé nañ benn réunion incha allah lundi incha allah dinañ dem IA raconter ñun ñun ñi responsable yi ak euh, proviseur ak quelque délégués de professeurs pour ñu trouver solution te jàpp naa incha allah rabi loolu day réussir. ah incha allah euh, mbokki internet yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu nekk fii si lycée ànd suñu ak yi. doo waxtaan ak ñoom situation yi mais gis ngeen situation bi ni fi demee te aussi tamit yaakaar naa tamit jàmm nañ ñëw que ñoom élèves yi jàmm la ñuy wër prof yi jàmm la ñuy wër que dafa am ay kii yu ndaw xam naa yu sa am rek mais bu lëndee incha allah comme te rencontre boobu na am incha allah am nañ si yaakaar waaw te yàlla bu yaakaar tas seen dernier moo seen dernier mot salaamaaleykum euh, maa leen nuyu yéen ni ñuy seetaan ak euh, sama camarade de classe yi ma tooga bëri na si ñu bëri ñoo xam ne dañoo yaakaar ni que kaawu élèves yi moo tax ñu génn mais au delà de cas boobu noonu am na leneen lu nekk si biir c' est parce que suñu camarade de classe yi dañoo toog 10 heures de temps sans faire cours alors que philosophie c' est coefficient 6 la si si L la léegi 10 heures de temps di faut cours alors que bac bi c' est dans un mois te un mois yi boo ci génnee samedi dimanche desatul lu bëri avec ça un mois neex naa muñ élève bi def na erreur d' accord mais ki mu di amal erreur bi moom baal na ko jeex na alors ñeneen ñi xam ne tamit dañoo bëggoon sot kii ki nga xam ne moom moo nekk ndey ndey mbill gi baal na kon moom ñoom tamit dañoo war a baale te un mois neex naa supporté moom élève bi sax reconnaître na li mu def ba dem na ba ni moom mën na bañ a jàng seeti mais après dañoo wax ak moom pour moom ñëw reconnaître na erreur bi mais puisque ki nga xam ni moom mooy ndey mbill gi baale na ko dañoo war a baale yaakaar nañu nag ñu bëri dañoo yaakaar ni que moom moo tax ñu génn alors que du loolu c'est que dañu doon revendiquer suñu ay droit mm-hmm. def na erreur moom moo def erreur léegi yoonu beneen élève nekku si yoonu beneen professeur nekku si di seen cours yu ñu waroon a def dañ ko waroon def normalement comme ni mu waroon a mel mm-hmm. léegi loolu c'est à l'administration de le régler mais au delà de ça am na yeneen yu nekk si biir peut-être seen biir loo tax affaire bi suscité nii ba dem am empereur bi aussi tamit nit rek mooy def erreur parce que malade du def erreur nit donc moom moo conscient comme des fois ni mu nekkee ku inconscient moom rek mooy def erreur un mois neex naa supporter un mois kese lañ ko laaj ba amee bagam mu dem su fekkee amul bagam mu xool beneen école loolu c'est très simple te samedi dimanche boo ko dindee da sa tudd lu bëri comme comme ni ma ko waxee léegi merci beaucoup comme que ren covid bi moo taxoon defuñu gouvernement scolaire amul dara moo tax bi école tijjee affaire am ñu regrouper responsable de fal ay délégué comme que boobu ba a ngi jot euh, résultat yene a ngi jot information yi nga xam si moy jugee ci problème bi té ñun tamit li ñu tax li fu dem élèves yi la ñuy représenté élèves ñom ñoo ñu yoni élèves yi la ñuy teewal ba fu ñu dem élèves yi la ñuy teewal ñun tamit ñi ngi ñaaxaat élèves ñu top ci ginnaw té dégg ndigal parce que nit ki li ngay kaas li nga mom diko laaj même lér na la yow yaa ko moom yaa koy laaj laaj ko ci yar ak teggin di defaat appel élèves yëpp ñu wuy suñu si discipline boobu noonu ñu jaar fi ñu war a jaar ba am li ñuy wut parce que leen maanaam wutuñu dara pour xët-xët wutuñu dara pour xeex di leen aussi rappeler aussi que ne gërëwuñ pour may leen ay moment yoo xam si da ngeen koy toog di xawaare pour def lu leen neex ñun gërëwuñ aussi pour may leen feet gërëwuñ aussi tamit pour bañ a jàng dafa am lu ñuy xeex dafa am lu ñuy mëne te loolu noonu buñ ko amee njariñu élève yëpp la constaté naa nag benn affaire boo xam si ni xaw na moom metti torom nag may koy ñaqalu ci élève yi bu dee ñu may dégg bugguma buñ génnee élèves na ne dañuy grève buñ taxawee fii war a wax ak ñoom la majeure partie génn dem ñibbi comme si dañ leen a génn pour ñu dem ñibbi dox yeneen soxla kon danoo war a taxaw déglu message yi ñuy jàllale si ñoom di baalu àq ñëpp di xam ne lépp lu si baax ngeen xam ne yàlla lu si dëng tamit ngeen xam ne man maa xamul dara rek ñi ngi jaajëfal ñëpp nag di gërëm Mori Mara di gërëm équipe Kébémer TV yëpp di rafetlu seen taxawaay parce que tamit euh, kontaan nañ si li ngeen def parce que nit ki boo amee problème doo xalaat fenn foo ko jooyee kon ñi ngi leen di jaajëfal ci initiation bi nga xam initiative bi nga xam ni def ngeen ko muy lu rafet lu nice ñu koy kontaan di ñu am kontaante bu baax léegi damay jox sàmba ak yeneen gars yi ñu conclure. waaw merci beaucoup presque liñ fi waroon wax yëpp mën naa ne wax nañ ko ah. voilà leneen rek mooy comme li Maxtaar mujjee wax rek ci ci élèves yi quoi génnewul leen fi pour diw euh, pour ngeen di dem di ñibbi wala ñu leen di jox fête parce que ñun war amuñu droit jox kenn fête mais tey bu ñu leen génnee c'est juste que xam nga dafa am lu leen bëgg a wax bugg ngeen déglu ko ngeen ànd ak ñun ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mënee nekul nak fi nak du champ de bataille hein. ñëwuñu fay tamit pour chemin fii la pagay de di xeex ak ay ay professeur wala di di ndax duñu se duñu seen ay ennemis tay ji kuñ ci xol buñ gisul ci yow suñu frère gis ci yow papa wala tonton donc kon bët bobu ñu leen xolé xoolee je pense que ñom ñom aussi mom lañ ñuy xolé voilà lenn rek moñu ñu soxal muy jamm ak salam voilà en tout cas jamm lañ bëgg ci suñu lycée bi

ah gis nga donc mbokki internet yi comme ni leen ko waxoon tey ñu ngi woon fii si lycée bu Kébémer nekkoon ak élèves euh, ak ñu doon décrire situation école bi fi fan yi si tension bi ñu doon dund fan yi yëpp si entre prof ak élèves yi boobu waral ñuy doon def euh, seen grève yi ñu def ñu doon def yëpp dégg ngeen élèves yi euh, ñu ngi ñaax tamit professeurs yi tamit ñoom su nekk tamit ñoom mënunoo addu tamit Kébémer TV tamit tëjee na leen saa ñu soxlaa Kébémer TV incha allah ñuy ñëw tamit jël si ñoom tamit ñoom nga xam te ne si tamit non non noonu la problème bi demee waaw waaw prof yi tamit ñoom ñu leen di déglu bu baax tamit parce que waaw version prof yi parce que dégg ngeen élèves wax ne ñoom jàngale ak lan bëgg te ñoom tamit prof yi jàngale ak lan bëgg kon yaakaar naa euh, euh, waroon na mën a juboo waroon na mën a juboo te maa xam ne fu affaire yi tikki tembale mais Kébémer TV moom na si euh, nañ si dikk bu baax a baax na si dikkaat ak yéen bu baax a baax fu affaire yi toll ak nañ si dikkaat ak yéen ci leen wax bu leen fàttee aussi tu abonné ci votre chaîne leader Kaymer TV ak tu partage aussi tamit euh, ñu ngi leen di jaajëfal tey jii ñu nekkoon seen émission ñu nekkoon seen première seen ñu nekkoon seen première plateau seen émission sunu ndaje ñu àndoon nag tag ak Mamadou Thiam Ndiaye nekk si caméraman bi seen présentateur Mamour Dien euh, euh, ak Wadizone réalisateur deuxième vision montage Kaymer TV. eh na ngeen ko ko si Kaymer TV ah. जल्दी से बोलो